yemook juróom-ñeenti fan ci weer bi ñu nekk ci heure bu tolloog nag vingt trois heures dix fii ci Sénégal ñaar ñi nag ay nappkat lañ woon ginnaaw nag bañ deme woon daal di napp ji di fàttali rek nag ñoom ñaar ñooñu ñëpp ay nappkat lañ woon waaye ba ñu demoon di liggéey dañu ànd ki nga xam ni seen patron naka noonu nag la ñu daal di jotee mais ba ñu jotee dañoo daal di songoo laataa ñu leen di àtte nag kenn ki nag daal di jël paaka daal di koy jam di fàttali rek nag ñaari jam jam la dënn la ko jam benn bi nag mu jam ko ko ci côté bopp naka noonu nag ñu daal di koy yenn di ko yóbbu hôpital mu daal fay jaare ñàkkee bakkanam ginnaaw loolu lañu alerté police bu muur mu daal di ñëw ci lieu de crimes ba mu fa ñëwee nag gis daal di ki jam moroomam rek dafa daal di daw naka noonu nag la ko police tracé ba fekk ko nag ci booru géej gi mu daal di toog di jooy jooy yu metti police nag jël na ko daal di ko yóbbu foofu yi nga xam ne mooy commissariat central bu ngir rekk amal fa ab enquête di fàtt rek ñaari cousin yooyu daal di jamante moom mi daal di jam papaam moo nekk mag ci ki nga xam ni moom la ñu jam ba mu jaaree fa ñàkk bakkanam waaye bu ñu jógee Mbour dañuy avancer tuuti daal di dem ba Thiès Thiès nag li fa xew nag xaw naak yemook li xew mbuur ndaxte ab photographe lañ fa daal di agressé daal di koy jamate ba mu jaaree fa moom it daal di fay ñàkk bakkanam li ni mel nag mi ngi xewee niki lëndi foofee ci quartier standing bu Thiès di fàttali rek nag moom dafa génnoon daal di dem ab yoonam naka noonu nag ab mboto bu daal di def ñaari nit daal di romb rek daal di këf li nga xam ne moo di téléphone naka nag mu topp ci di daal di daw nag si lañ ko defee jëf ju ne mel ba tey nag police nag uppi na ab enquête mais jotagul rek jàpp ñi nga xam ni ñoo def ji lépp jëf ju bon dañuy daal di ñëwaat fii Dakar dem foofee nga xam ni moo di fédération Sénégal sénégalaise bu football daal di fay jëli ki nga xam ni moo fa nekk président rek boo xam te ne moo nekk président sélectionneur bu équipe nationale bi di Sénégal mu ñu koy wuyoo nag si turu Aliou Cissé ku dégg football jamono ji nag sa na dina dem ci coupe du monde boobee war a am foofee ca Qatar naka noonu nag équipe nationale bu Sénégal bokk ci bi lépp sélection ñun nag ñi ngi waaj a dëgmal coupe du monde ci fan ci ci fan yi di ñëw ba tax na li nga di ab di wane ñi nga xam ne ñoo war a bokk ci bi lépp jongante ci sélection bu Sénégal ki nga xam ni moo di Aliou Cissé ak fédération sénégalaise bu football xëy nañ tey rek daal di koy fësal naka noonu nag nemmeeku nañ ki nga xam ne moo di Saliou Cissé ak Fodé Ballo-Touré ñoom daal wowuñu leen ak ki nga xam ni tamit moo di Mame Balla Thiam Sadio Mané nag mu tiit mu doon tiit sax ki nga xam ni moo di Aliou Cissé jot na ko convoqué ba tey dañuy desandi ci football ñu dëgmalee li nga xam ni moo di coupe du monde di fàttali rek nag suñu attaquant bi di Sadio Mané nga xam ni joueur la foofee ca FC Bayern Munich dafa amaloon ab match ndiki semaine bu ñu génn moom nag ci biir match bi rek dafa jotoon blessé ba tax na sax foofee mu nekk ca club ba mu di na jot nañoo publier que moom mais di Sadio Mané match bu ñu dëgmal du ko am waaye nag tey nag fësal ne nañ ko blessure bi dafa temporaire te nag dina a ba tax na nag moom mee nag di président fédération sénégalaise bu football ak Aliou Cissé seen liste ki nga xam ne moo di Sadio Mané daal jot na ci bokk waaye ba tey ci football bi ndax ginnaaw suñu attaquant bi suñu défenseur bi nga xam ni moo di Abdou Diallo moom it dafa blessé ci match bi ñu passé ba jotut football waaye moom nag bañ ko toppee ba ci biir blessure am bi garaawul moom it tamit bokk na ci ñu convoqué ngir ñu dëgmal lekk bi nga xam ne moo di coupe du a rek équipe Sénégal ñu am jàmm te it suñu attaquant beeg suñu joueur bi daal di jug ci jàmm ba mën a amal jongante bi ci jàmm ñu mën a indi coupe bi fii fii ci réewub Sénégal seeraayub dund fii nga xam ni moo di Sénégal jéggi na dayo ba tax nag kii di njiitu réewub Sénégal jot na wàññi yenn yi nga xam ni moo di denrée alimentaire de première nécessité li ci mel ni mburu suukar ak diwlin ba tax na sax dëkkuwaay kii la nga xam ni moo di président Macky Sall di njiitu réew fii ci Sénégal jot na ko wàññi li ni mel nag daf ko fësal rek ndiki ci biir semaine bu ñu génn gannaaw nag ab conférence bu mu amaloo rek jàkkaarloo ko askanub Sénégal ba sax nag moom mee di président joxe na ab numéro vert boo xamante ne képp ku rek képp rek ku dem ci ab boutique yooyu nga xam ni moo di denrée alimentaire de première nécessité nga xam ne daal ko soxla wàññi wuñ ko rek nga daal ci woote naka noonu nag bés boo ci wootee rek ni ko jot te nag wàññe bi mi ngi mel ne nag par force la ndax ñi nga xam ni ñoo di commerçant fii ci Sénégal dañuy daal di jéem laxas jànn ci li nga xam ne rek moom la ñuy jaay askanu Sénégal ñu soxla ko torop te fuñ toll teeme ñu nekk ci crise bu métti te lépp nga xam ni métti na dëkk bi bëri na coow te tamit àdduna bi wërngal këpp bëri nay geer ak wax yu sew mujjee def di ab terroriste bu ñu jàppoon foofee ca Kolda mu waroon fa def ab base war fa forme yeneen terroriste moom nag fi mu toll temb mi ngi ci loxolo yoon waaye nag ba ko yoon jàppee topp enquête bi dañoo gis leneen lu ñu jaaxal ndax moom mais di tur di wuyoo ci turu Yaya Diallo euh, moom rek dafa naroon formé ñooñu nga xam ne ñoo war a nekk ay terroriste foofee nga xam ni moo di Kédougou li ni mel nag jaaxal na ñi nga xam ne ñoo yor bi lépp dossier ba tax nag dinañ gën a xuus ci enquête bi ndax fi mu toll tembe li ñuy xam nag li gën a nëbbatu moo moo des ba tax na nag dinañ leen toppal enquête bi lépp rek loo xamante ni ruus na si rek dinañ leen ko indil fii seen chaîne SENactu TV dañuy dem ba daal di côté kajoor de waaye rawatina nag dëkk yi nga xam ni moo di kell ak fi nga xam ni moo di bëdd ndax ku ko dégg rek xëy na nga war a xam fi nga xam ni moo di jokkul ndax jokkul soriwul li nga xam ni moo di kell ak fi nga xam ni moo di bëdd jeg jokkul nag ab gaz moo fa daal di explosé daal di rey ki nga xam ni moo di borom kër ga ndaw su jigéen sa maanaam maîtresse des lieux ak ki nga xam ni moo di doomam di ab bébé ak jànkam moom nag li nga xam ni moo di gazu toggukaayam rek moo fa daal di tàq rek rek ba indi li ni mel ñoom nag jot nañ leen rawat rek ki nga xam ni moo di Kumba Faala ñàkk na bakkanam ni ki mbaar di naka noonu nag bon bi daal di ñàkk euh, bakkanam ni ki aljuma ginnaaw nag ba ñu ko indee fii ci ab euh, clinique privée fii ci Dakar li ni mel nag jokkul la daal di xewee Pape Alé Niang la ñu jot rek ni jot nañ ko transféré foofee ci prison bu Sébikotane gannaaw nag ba ñu ko euh, ki nga xam ni moo di juge bu deuxième cabinet rek rek daal di koy woowee daal di koy euh, gannaaw nag jàppam boobu ñu ko jàpp jëmoon rek ci ab wax ba mu waxoon ñu jàpp ni rek que secret d'état la boo xamante ni waruñu ko génne di fàttali rek nag ne Pape Alé dafa wax rek Afrique de l'Ouest Dakar bokk na fi nga xam ni moo gën a cher pour dundin li ne mel nak la ki nga xam ni moo di Pape Alé wax ba tax na nag ñu daal koy teg loxo ndax rek dañoo jàpp ni kii nga xam ni moo di Pape Alé dafa am ay sources yoo xamante ni waxu ko wala mu nekk rek nga xam ne moo di moo di nguur gi ndax li nag ñoom dañoo jàpp ni rek information la boo xamante ni soxlawul woon nit yi di ko xam ba tax na nag moom mais di Pape Alé Niang gannaaw ba ñu ko jàppee yóbbuwoon ko foofee ca kaso ba jot nañ ko yóbbu foofee ca prison bu daal di bu prison bu Sébikotane moom nag démb rek lañ jot ni dañ ko jot a defeere ba tey dañ daal di desandi ci nga xam ni moo di arrestation bu Pape Alé Niang ndax kii di Pape Ngagne euh, nekk ab présentateur émission génn na rek di ci àddute nag nee na bi lépp jàpp bu ñu jàpp ki nga xam ni moo di Pape Alé Niang di ab journaliste doon liggéey foofee ci 2STV nee na nag nekkul loo xamante ni rek rafet na ci ki nga xam ne moo di njiitub réewub Sénégal waaye mbokk internetu seen acti tv tey nag li leen indiloon ci li gën a fës ci xibaar yi dig daje ëllëg waaye laata loolu wéyen di leen di abonné te bu leen fàttee di appuyé wu ci cloche bi pour di mën a am suñu ay vidéo ñu a indi xibaar yi fii ci seen chaîne YouTube SENactu TV la chaîne au cœur de l'information à la prochaine ci yeneen rubrique fii lay xewee fii ci seen chaîne YouTube SENactu TV